ci recrutement juróom benn fukki junni ak juróom ay ndaw la ci ndax bi président la république décidé def programme d'urgence bi dafa wax nit ñi ñu waxtaan ci gox yi département yi nit CDD ci yi def CRD wax li nga emploi des jeunes au niveau de chaque département donc loolu programme d'urgence juróom benn fukki junni ak juróom ay ndaw góor ak jigéen dina leen jël ci biir département yi ci euh, ci ci liggéey yu nga xam ne nii ci wàllu reboisement la ci wàllu cadre de vie ci wàllu tourisme ci wàllu sport ci wàllu santé ak ci yeneen wàllu yoo xam ni sama naataango ministre de la jeunesse dina ci ñëw léegi loolu benn pàcc la beneen pàcc bi euh, convention nationale état employeur nga xam ni président dafa décidé que ne daf koy yóbbu ci benn milliard yóbbu ko ci fukki milliards ak juróom lan mooy convention état employeur convention état employeur ndaw ñi suñu jàngee ba pare génn dem dem wuti liggéey ci entreprise yu bëri dañ leen wax ni amuloo expérience parce que amuloo yaa ngi soo génn école amoo expérience état taxawal ah, convention boo xam def ci xaalis def ci milliard pour que ndaw boobu su demee ci entreprise bi entreprise bi di fay génn wàll gi état di fay génn wàll gi entreprise bi ci tënk ndaw bu ñëw ci entreprise war am fa stage à travers la convention état employeur

lu toll ci ñaar fukki junni xale dina ci war a mën a ab liggéey ci convention boobu beneen pàcc bi bu am solo ci programme d'urgence bi mooy Sénégal dafa bari ay ndaw yoo xam ne nii nekkuñu ci école nekkuñu ci liggéey nekkuñu ci formation président décidé ci biir programme bi que ne lu toll ci fanweeri junni xale trente mille xale ñu tuddee leen ay apprentis ñu tudde leen ñi nga xam ne ñu nekk ecole dugg teel a génn seen jàng yàqu mais ñu tudde leen aussi ñi nga xam ne ñoo génn ci daara yi parce que mën nga am sa doom décider mu dem jàngi alxuraan su pare état daf ko warul jox ko métier gunge ko pour mu mën a dugg dans la vie active ñooñu ñu boole leen ci programme bi fanweeri junni place yoo xam ne nii dana tax xale yooyu di jàngi ci atelier artisanaux yi mais aussi di dem compléter seen jàng ci école de formation yi nekk ci seen gox goxaan yi donc muy formation en alternance nga nekk apprenti nga génn école dugg école teel a génn wala nga nekk nga génn ci daara bëgg a jàngi métier programme boobu moo lay jël dina la yóbbu ci école ci ci ci ci atelier artisanal bi mais dina la yóbbu ci école bi pour nga compléter sa formation ñooñu nag président de décidé que ne waxuma ko ci nasaraan léegi dinañ leen jox ñetti junni ci comme bourse pour seen formation loolu am solo la dafay fa dafay régler ñaari problème benn mooy. xale bi su génnee école su teel a génne école wala mu génn daara wala mu nekk ci apprenti dina formation boobu dina mën a tax mu toog ci dëkkam mën a jàng métier mais xale boobu nga xam ni dafa nekk ci atelier bi di fa jàng métier su ngoonee wala bu samedi wala dimanche mu dem ci centre de formation bi complété formation kooku dina tax bu ëllëgee mu nekk beneen nouveau type de maître artisan boo xam ni entreprendre dina ko yomb li ci jublu mooy que ñooñu ci seen gox suñu ñu jàngee métier tey ci centre bi ngo suba ci centre ci ci ci atelier bi ci ngoon gi ci centre bi bu ñuy demee ba jeexal seen formation dañuy am seen yëfi bopp tëgg seen programme li ñuy tuddee business plan pour que institution financière yi notamment la DER ñëw financé leen donc loolu pàcc la ci biir programme d'urgence bi beneen pàcc mooy président dafa jàpp ne parce que loolu statistiques yi ñoo ko wan que ndaw ñu bëri ñuy génn di wut liggéey amuñu compétence maanaam amuñu métier li ñu koy wax ci wolof mu ne kon day indi li ñu tuddee bon de formation nga nekk ndaw bëgg a jàngi métier état gunge la fayal la sa formation pour nga dem jàngi métier loolu ñaar fukki junni ndaw la ci biir programme bi 20 000 jeunes qui vont bénéficier de bons de formation pour mën a dem jàngi jàngi métier beneen pàcc bi ci biir formation en euh, apprentissage actualité tey bi war nañu ko tey ñu ngi wax ne ci ñetti at yi ñetti junni. doomu aadama génn nañ àdduna ci ay accident li ko waral li jëpp ci nit ñi la donc ci CDD yi ci CRD yi nit ñi wax ne xale yi wax ne bëgg nañ ku leen gunge ñu am formation am permis su ñu am formation sécurité routière pour mën a am permis donc ci programme bi am na ñaar fukki junni xale yoo xam ni aussi dinañ leen gunge pour ñu mën a am euh, formation su euh, su ci conduite ci code de la route ba mën a am seen permis beneen bi des. ci programme bi mooy ne euh, président dafa décider jàppale xale yi nga xam ne ñoo nekk ci école yu ndaw yi ñu tudde leen préscolaire jardin d'enfants ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci primaire ñu wutal leen ay tenues du ma ñëw ci njëriñu tenues yooyu ci biir école bi parce que ñëpp d'accord nañ ci mais loolu dafa am beneen aspect boo xam ni mooy aspect économique bi lalu ci biir xale yooyu toll nañ ci ñaari millions

tailleur yi nga xam ne ñoo fa nekk ñoo ciy liggéey pour defar tenue yooyu gannaaw bi nga xam ne ministère de l' éducation nationale joxe na euh, spécimen yi benn pàcc bi mujj mooy ci wàllu entrepreneuriat ak financement ci programme bi am na un important volet formation euh, en entrepreneuriat ñu demee ni ay PSG dañuy dugg ci programme pour gunge ndaw ñi pour ñu def seen parce que bu ñu bëggee régler problème emploi il faut que ndaw ñi nango def seen yëfi bopp mais def seen yëfi bopp nag dafa am yoon muy parcours d'insertion boo xam ne la ñu war a gunge xale yi jàngal leen tàggat leen tàggat leen lañ leen yore seen yëf bu ñu paree ñu financé leen président décidé ci programme bi que financement yi nga xam ni DER moo ko doon def à partir de ce programme dañ koy territorialiser yóbbu ko à tout le moins au niveau des départements xaalis bi nga xam ni daanaka toll na ci 75 milliards de francs CFA ci financement dañ koy tas ci biir département yi pour que ci biir département yi ñu mën leen financer directement loolu nag pour ñu def ko dafay am li ñuy tuddee pôle emploi entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes te département bu nekk ci ñeent fukki département ak juróom mun naa ñeent fukk ak juróom benn ndax Kër Massar dina am pôle emploi entrepreneuriat yi nga xam ni commencé nañ leen installé ci buy pôle boobu dafay am au moins dina am ANPEJ dina am 3FPT dina am DER dina am ONFP dina am euh, euh, euh, APIX dina am ADPME yeneen structures yu mel ne yoo xam ni ñoom ñëpp dañuy liggéey ci wàllu gunge ndaw ñi pour ñu am pour ñu am liggéey donc jàpp naa ne pour tontu ci question yi de manière globale loolu mooy li nga xam ni les principaux pas maanaam mooy juróomi tànk yi wala juróom-benn tànk yi nga xam ne nii programme d'urgence bi tënku na ci pour mën a gunge ndaw ñi ñu am liggéey jàpp naa ne monsieur le ministre loolu laa amoon ci li ma dans un premier temps su amaatee yeneen leeral ma dellu siwaat jërëjëf